ñoom nag dañoo waxoon ñoom Ousmane Sonko ne leen seen liste bi ci département bu Dakar respecté leen li nga xam ne mooy parité bi te nag amu leen sañ-sañ andi ay coppite loole moo taxoon ñoom Déthié Fall jër mbir mi ñoom Khalifa Sall dem nga xam ne mooy conseil constitutionnel journal bi jox nañ leen dëgg nee nañu leen am ngeen sañ-sañ andi ay coppaan yi yéene kaay gi nee na coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Gëm Sa Bopp bu Bougane Gueye Dany ak Fadel Barro ñoom tim dañoo dugaloon beneen recours boo xam ne li ñu doon sàkko ci conseil constitutionnel ñu daal di annulé liste Benno Bokk Yaakaar bi ndax benn Bokk Yaakaar dafa ëppal li nga xam ne mooy ay parrain loolee nga xam na nag moo nekkoon bëgg-bëgg Yewwi Askan Wi ak Bougane Gueye Dany ak Fadel Barro conseil constitutionnel da leen koo gàntalal yéene kaay gi l'Observateur ak L'As nee na liste gëm sa bu Bougane Gueye Dany dañu koo daal di rejeté conseil constitutionnel leen yéen mënu leen bokk ci élection yi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien Assane Samb xëy jël xalimaam rafetlu bu baax baax dogal bi nga xamante ni ñi nga xam ne ñooy waa conseil na nag jot na jamono ji ñu daal di nga xam ne nag mooy parrainage bi ci Sénégal jot nañu daal di di Direct News nee na ñi nga xam ne ñooy waa conseil constitutionnel daan na ñuy jox dëgg coalition Yewwi Askan Wi ci département bu Dakar waaye nag li ñuy laaj ñun waa Direct News nee nañu ñi nga xam ne nag ñoo fi nekkoon doon ŋàññi conseil constitutionnel tey ñu jox leen dëgg ana lan la ñuy wax yéen kay gi di exclusive nee na juróom-ñaari charge yi daat nañu nag sauver Sénégal ndax nag violence yi nga xam ne moo naroon a am ci réew mi loole nag mën naa Dakar insurrection mën naa bañ a am ci réew mi Macky Sall mi nga xam ne waxoon nañu ne dem palais tamit jeex na naax saay na palais bi xam ne ñoom Ousmane Sonko njorto nañu ne mën nañu faa dem bu ñu rejeté seen liste bi loolee tamit jeex na journal bi nee na am ba des dogal bi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko nga xam ne moom lañ ci mën a jàngatee mooy nag manifestation du am arrestation du am blessé du am marche du am taal du am dee du am yéen a kaay gi nee na Askan Wi rétabli dans ses droits bi yi super électoral ak Alioune Tine ñoom nag rafetlu nañ bu baax a baax dogal bi nga xamante ni conseil constitutionnel da koo daal di jëla yéen i kaay gi de enquête ñoom Thierno ñoom nag mer nañu ba maara détaillé coalition Aar Sénégal ñoom nag nee nañu lii baara yëgoo la maanaam dil diggante benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom Thierno Bocoum ñoo ko wax nee nañu lii dil la yéen i kaay gi di réew mi ko di jee Thierno Gueye constitutionnaliste la moom na lool ci lu jëm ci wàllum yoon nee droit a été dit ndax nag ci atum 2017 dafa moon disposition yoo xam ne da doon tere nag li nga xam ne mooy ay coppite waay nag loole dañu ko jee dindi dañu ko mujjee abrogé yéen a kay gii di Vox Populi Bougane Gueye Dany non nag mer na Bougane Gueye ba maara de tale Bougane Gueye Dany démb lu nag ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllum élection yi ci réew mi waa conseil constitutionnel Bougane Gueye da koo fàtte yekk na musiba nga xam ne nag ñooy waa coalition Yewwi Askan a gaaruwaale ndax na nag Macky Sall ci boppam ay tokaar ngir nag dem ak ñoom ci élection yi yéen kaay gi di source a nee na juróom-ñaari chargé daan nañuy nag dakkal annulé nañ insurrection bu Ousmane Sonko bi yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo nee na li nga xamante ni mooy parrainage bi wax nañ ba sonn Macky Sall imposé ñu li nga xam ne mooy parrainage bi ngir nag tànn ñan lay demal ci ay élection législative ak présidentielle waaye nag musiba maba kumba gi nga xam ne nag moo am ci parrainage bi jamono ci Benno Bokk Yaakaar këpp ndax ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñoom wax nañu ba sonn Macky Sall dëgër bopp ndax nag waa CEDEAO wax nañu ne parrainage bii jot na ngeen xoolaat ko Mamadou Lamine Diallo nee na article 149 alinéa 3 du code électoral wax na lu mel ni mi di ci lu jëm ci wàllum parrain yi maanaam maximum de parrain liñ ci wax leer na naañ ñi ndax dañoo wax ne 55 327 kenn mënu koo weesoo ndax lu mel nii moo taxoon ñu annulé na candidature Malick Gakou ci atum 2019 la loi c'est la loi loole nag Macky Sall il faut mu xam ko Benno Bokk Yaakaar disqualifié nañ ko ci élection législative yi est-ce que nag Benno Bokk Yaakaar moom dina jéem a nag tenter ab coup d'état électoral ci ndimbalul conseil constitutionnel loolee ab laaj la yéen kaay gi di bés bi ñu koy fekk fa Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau moom nag nee na coalition Yewwi Askan Wi coalition la contre nature journal bii di enquête ñu koy fekk fa Aminata Touré yàq na musiba ak mbelengaan Ousmane Sonko Aminata Touré nee na Ousmane Sonko nitu fitna la waaye nag nañu ko sanctionné ci urne yi nañu sanctionné Ousmane Sonko ci urne yi ndax nag nitu la ba tey moom Aminata Touré Ousmane Sonko mii moom est ce que nag Ousmane Sonko maanaam sax moom du julli daal maanaam di ñaan ngir Sénégal musiba am ci réew mi yéen a kaay gi de laas bàyyi mbir moomee wax ci jàngale jàngalekat yi nga xam ne jamono ji mer nañu ba maara détaillé ndax nag jàngalekat yi nee nañu accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ak gouvernement bi ba léegi ni France daal di xëddee na gouvernement bi ci dara yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na rey yu bëri yi nga xam ne moo am jamono ji ci Sénégal rey yu bëri loola ñenn ci askan wi nag dañoo bëgg ñu andiwaat peine de mort journal bii de Les Échos nee na Khassimou Ba mi nga xam ne moom la ñuy njortu ne moo rey ki ne gay ca diwaanu Pikine démb nag moom ak waa police def nañ reconstitution des faits maanaam mu ñëw misaal nan la def nan la duggee ci biir nan la ko jamee paaka yee nee na nag dafa ñëw solob masque solob casquette ngir nag bañ ko ko xàmmee nee na mu jam ko fanweer ak juróom ñaar cay paaka nam ko doon jamatee lépp nag daf koo daal di misaal ni ki démba yéene kaay gi di estat xëy dañu xibaara naan ñu saajo Mané def na lu toll ci fukki at ci équipe nationale bu Sénégal jaloore yi mu si def journal bi ñëw na xëy di ko faram-fàccee